bëgg rek loo xam ne eh, dana eh, dana gën a dana dana dolli ko ci Touba. bëgg rek loo xam ne dana dolli ko ci Touba. te dëgg la xéewal yi mu fii séentu bari na waaye ndox nag moo ci jiitu. dëgg la xéewal yi ñu fii séenu bari na waaye ndox da cee jiitu. ndax Serigne Touba fàggu fàggu na lépp. ndax Serigne Touba fàggu na lépp. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. ci tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. loolu alhamdulilahi rabbil alamin day gën a dalal sunu xel rek. loolu alhamdulilahi rabbil alamin day gën a dalal sunu xel rek. ma ko waxee léegi sëriñ bi fàggu na lépp ndax nee na ni mu ko waxee léegi rek sëriñ bi fàggu na lépp lu mat a fàggu rek fàggu na ko lu mat a fàggu rek sëriñ bi fàggu na ko jubóo na ceeg boroomam te jubóo na ceeg boroomam kon yéen da ngeen am tawfeex sëriñ Touba rek kon yéen da ngeen am tawfeex sëriñ Touba rek ñoo ngi leen di sant ci yitte ju réy jooju ñaa ne mi ngi leen di sant ci yitte ju réy jooju taxawaay bu rafet boobu taxawaay bu rafet boobu jóge ci yéene ju rafet a rafet jóge ci yéene ju rafet a rafet a rafet bu bu sell sell bu wér a wér a wér. ak bu xol moom bu xasee aju ci Sëriñ Tuubaa rek. ndax xol moom bu xasee aju ci Sëriñ Tuubaa. Pastef ba sell na wér na. na wér na. kon nag jërë ngeen jëf. nee kon jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen di sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax. nee na mi ngi leen di sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax. kon nag dégg nañ leeral yi. nee dégg na leeral yi. ci wàllu gëstu gi. ci wàllu gëstu gi. xam ndox jiitu ci. te ndox jiitu ci. loolu loolu day lu nee na loolu day lu nu aajowoo aajowoo aajowoo. ndax ndox dafa dafa nekk moom mooy lépp. ndax ndox moom mooy lépp. kon nag sunu aajo sunu aajo yi bari na te rafet na njort ci ne aajo yooyu yëpp dana faju kon nag sunu aajo yi bari na na waaye rafet nañ njortu ci ne yëpp day faju waaye ndox nag moo ci jiitu waaye ndox nag dajaa jiitu mooy mooy aajo ji tee ji taxaw tem mu fi mu nekk nii ndox nag mooy aajo ji taxaw tem mu fi mu nekk nii ñëpp ni ngeen ko defee rek war nañoo jëmee suñu xalaat ci noonu ndox di amee Touba ba doy sëkk nee na kon ñun ñëpp sell di ndox mu sell ni ngeen ko defee ñun ñëpp war nañoo jëmee suñuy xalaat ci ndox di amee Touba doy te sell. suñu yitte suñu yitte ñu jëmee ko ci ndox di amee Touba di sell. ndox na na ndox na Touba mën ndox mu ndox mu doy mu sell. na Touba mën a amee ndox mu doy mu sell. loolu ñun suñ suñu yëpp suñu yitte jëpp ñun ñii. nee na ñun ñii. rawatina yéen rawatina yéen ñii. rawatina yéen ko war a jëmee rek ci ndox. dañ koo war a jëmee rek ci ndox. na mu gën a gaawee. na mu gën a gaawe waaw noonu rek la demee. nee noonu rek la demee. mbënd maa ngi fi. mbënd maa ngi fi wax dëgg yàlla lu lu waar la ndax euh, mën lu rafet ci njort. moom wax dëgg yàlla lu doy waar la. ak lu métti métti métti métti métti. mënul lu rafet ci njort rek lu métti métti métti. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. loolu dama dafa mel ne xëy na dafa bëgg indi ndox mu. ndox mu ndox mu bare bare bare bare mu sell loolu xëy na dafa bëgg andi ndox mu bare bare bare mu sell moo tax natt boobu jiitu moo tax natt boobu jiitu nee noonu rek la ko mën a gisee nee ko mën a kon jërë ngeen jëf yitte jàngoo kon daal yitte jàngi noonu ñëpp daal dañ ci jëme suñuy xalaat ñun ñëpp nañ ci jëme suñuy xalaat num daal di gën a mën a amee num daal di gën a mën a amee euh, liggéey bi liggéey Sëñ Tuubaa dafa rëy lool liggéeyam Serigne Touba dafa rëy lool. ndax yàlla rek la yàlla rek yàlla rek la loon liggéeyal. ndax yàlla rek la doon liggéeyal. moom liggéey te moom la lu fi bàyyi te yitte jooju la nu bàyyil. moom la nu fi bàyyil. moom la nu bàyyil. liggéeyal yàlla dong moo nu fi moo nu a bàyyi. liggéeyal yàlla dong moo nu fi man a bàyyi. kon nag. kon nag. yitte jàngoo ko. yitte jàngoo ko man nag lay sama yitte dëgg-dëgg. nee moom nag li yitteem dëgg-dëgg. sama bànneex. bànneexam mu gënal ma. mu tam gënal ko moo di ñu indi ndoxum Lac de ba bi ci moo di ñu indi ndoxum Lac de